ak seen agence Techno Habitat mi leen di sammal seen i bien immobilier ñoo leen di may di ci yéene kaay yi Abdoulaye Bopp lañ si yàndal démb taskatu xibaar yi yendoo tiis bu ñu sukkandikoo ci yéenekaay lu ñu xëyee tey ca yoonu Kédougou ñetti liggéeykatu leeral point net ñoo fa faatu ci accident gu métte métti seen woto mbëkkanteeg camion ca yoonu Kédougou gannaaw bu ñu bawoo ca Tambacounda doon jiitu ji njiitu réew mi Macky Sall foofee ca Kédougou Walf Quotidien dañu xamal ne mbirgu gu tiis la goo xamante ne tegu na démb ci taskatu xibaar yi laas dañu yëgle ne leeral TV rédaction ba wéet na ndax ñetti ci ay liggéeykat la ñàkk ci jamono ji euh, bu ñu sukkandikoo ca ka jiite rédaction ba euh, jàpp ne itamit euh, kàngam la ñu woon ñoo xamante ne daanaka béy nañu seen waar wu yaatu ci métier tasum xibaar ba noonee ñu ñi leen di yebal ci tournée économique bu njiitu réew mi Macky Sall Macky Sall sax demoon na fekk ji fa la ba amee ca yoonu Kédougou ci noonee la saa la jël dogal dakkal bépp xumbeen ci tournée am googule ca Kédougou l'info di ñu xamal ne tournée gu deretal goo xamante ne bakkan rot na ci Abou Mamadou Sy di taskatu xibaar Yoro Mamadou Diallo di caméraman ak Ousmane Ndiaye di chauffeur bu leeral TV point net yéen kaabine seen woto 4 kat 4 ga ñu euh, nekkoon moom mbëkkanteeg beneen camion goo xamante ne ma nga baw ca Mali doon jëm si fii ci euh, réew mi euh, googule fitna ci googule accident njiit réew mi Macky Sall moom xam le ne ci saa si nañ ci ubbi ak enquête ca na mu gën a gaawe ngir xool la sooke accident googule yéen cabinet sur soi ne taskatu xibaar yi seen drapeau sëngéem na démb seen naataango taskatu xibaar ñoo faatu ci accident am ci ñaar ñu ca jëlee gaañu gaañu yu metti Aminata Sow lay wuyoo rescapé la ci googule accident ma nga ca lalu hôpital ak Thierno euh, Ndiaye yéen cabinet ñu ngi ci euh, tolof tolof yu metti ndax gaañu gaañu ya ñu jëlee euh, ci accident googule li quotidien di ñu yeggee tournée bu njiitu réew bi Macky Sall ñetti liggéeykatu leeral point net ñoo faatu ci accident njiitu réew Macky Sall ne enquete nañ ko ca ubbi waaye nag ña ca loru ci googule accident dina leen taxaw amee gaañu gaañu avion militaire ci saa si moo leen fa jëlee ca Kédougou yóbbu leen ca euh, hôpital l'Observateur ne lu tiis ca leeral point net euh, TV. Eh, ñetti liggéeykat ya fa la ñu faatoo ci googule accident bokk na ci eh, kenn ka di taskatu xibaar Abou Mamadou Sy démb ci suba teel la yónnee sapom gu mujj ci rédaction bu walf point net eh, gannaaw la mu jotoon a taataan foofe ca Tambacounda laata muy dem ca ke Kédougou jotuta dugg ca googule gox ndax accident goo xamante ne dab na ko ca yoon ba l'observateur ne kenn ci ñoom sax ma nga doon xaar ak ku bi jeex mu soobu ci takkum soxna mu ngi ci l'observateur critique liggéeykat lañu yoo xamante ne ñàkk nañ seen bakkan ah, ca yoonu Kédougou bu dee nag ah, ca ah, yéenekaay bi wala boog ca site internet bi di leeral point net njiit ma di Dame Dieng jël na dogal ña ca ñàkk seen bakkan dina jox seen jaboot kenn ku nekk benn million liggéeykat yooyu itamit fi rek at dina leen amel seen payoor weer wu jot mu ngi ci critique yéenekaay bi di la témoin ne ci jamono jooje njiitu réew Macky Sall ma nga bawoo ca Tamba dugg Kédougou niki démb wàllu politique mañ koy tuddal ci googule eh, tournée ne ne laalewu ci ak politique koom-koom moo ko tax a jóg jot na ubbi bees hôpital bu Ahmed Dansoko ca euh, Kédougou euh, yéen a bi di 24 heures ne ci jamono jo xamante ne Benno Bokk Yaakaar ña ngay wane seen bopp euh, ci fépp ci réew mi ci jamono jooje ana ku jég bi selew la ñu def kenn déggu leen alerte moom mag ñi dégtal alerte bi nga xamante ne moom la maître Abdoulaye Tine def ci loi gi ñeel wàllu parrainage te nguurug Sénégal war a gaaw ngir teggil ko askan wi ca na mu gën a gaawee gannaaw dogal ga tukkee ca cour de justice bu CEDEAO loolee nag la Sénégal jëfeegul maître Abdoulaye Tine ci turbine dànkaafu nguurug Sénégal ne bu deful deful ndànk CEDEAO mun naa yëkkati ay daan yu tar teg ko ci Sénégal bu fekkee ne fi juróom benn weer jëfewuñu càkkuteefu googule dogal ngir ñu mun fe jëlee lii di parrainage yéen cabinet gannaaw ci wàllu avion bu njiitu réew Macky Sall bu bees bi geneen taxaw na ci navette maanaam ab bato goo xamante ne nguur gaa ngi koy jëfandikoo ci diggante Dakar ak Gorée yéen cabinet bateau googee le Fatick lañ ko duppee njëg maa ngi toll ci juróomi milliards ak lu teg ñu ngi ko jëndee ci weeru sulet atum 2017 lañ ko jënd bu ñu sukkandikoo ci Le Soleil mu ngi ñuy dégtal ne googu lépp euh, bateau le Fatick moo fa wutu euh, kii di la signaar mi demoon sax ba tàmbalee Maguette ci traversée Dakar gore Le Soleil ne lañ cay wax ci googu lépp bateau wute na lool ak la ca am euh, direct news ne campagne gi ñu jagleel vaccin yi daanaka doxatul laaj nañu ndax ñu bari ci askan wi nangootuñu ñàkku nguur gi sax waxatul la ca jëm yéen cabinet bu ñu deful ndànk ndax ñàkk yi du mujjee nëpp ci suñuy loxo mu direct news libération di ñu yëggee liberté ga mu am ba génn kaso euh, daanaka coobareem la fa génne ndax ay pexeem la lal ba Richard ca kaso ba boo jinne gis ne nañ ko téye ca kaso googe moo jaadu dossier daanaka waroon na fekk euh, nege ni mu génn kaso ba ba léegi waaye nag ba ba léegi euh, ña ngi koy téye ca kaso ba waaye nag ma nga ca biti janu naak itamit kenn ci taskatu xibaar yi wax na ca la mu xam ci googu les dossier rew mi quotidien kasso yi sax amatul kaaraange nga bu ñu sukkandikoo ci Boy Djiné mi ko xamle record mu ngi ñuy xamal match xarito goo xamante ne Sénégal war na ko amal Sénégal Zambie Sénégal Cap Vert ñaar fukki gaynde ak ñeent tàmbale nañoo tàggatu ca stade euh, Lat Dior ba ne ca Thiès waaye Habib Diallo ak Sada Thioub ñoom duñ ca bokk dañ leen a ci googule match Abdallah Sima ak Mame Baba cam ñoom wóolu nañ leen yéen cabinet gaynde gi di Edouard Mendy mi def jàlloore yàggut ñu ngi koy xaar ci tanière bi niki ci euh, samedi euh, gi ñu euh, jëm niki alxamis yéen kabi di stade ne ndax Aliou Cissé ci ñaar yile lan la ciy tànn 4-4-2 wala boog 3-5-2. Euh, tànn naka muy bëreel moom euh, Balla Gaye 2 euh, ak Bombardier combat ga taxaw na Bombardier dankafu na Balla Gaye ne bu fekkee ne Balla Gaye ci boppam ñeme na dëggal boppam taxaw ci googule combat combat gi du weesu ñaari minute moom Bombardier ne bu weesoo sax Balla Gaye 2 pare na ngir bëreek ma mu ngi xaar itamit kay daan diggante Ama Balde ak Modou man may xaar kay daan diggante Bombardier ak Balla Gaye 2 ndax butéel ba may sekkiloo ci googule combat Seydina Omar Ba moo